sa xam sa tey xam sa tey xam production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na waaye ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak yéen ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund sunu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal sunu ëllëg ñun ñooy taarix xam sa démb xam sa tey di waxtaanee nag nit ku màgg di waxtaane it dëkk bu màgg di waxtaane it daara ju màgg àgg sax ci daara ju kowe xam sa dem xam sa tey war a waxtaanee daara yi Pire sañu xóor muy université bu mag booba daara ju mag jooja li ñu njëkk a fàttali mooy bi nu koy sañc ak ki ko sañc ak nam ko sance ak ñafa jaar daara jooju di daara yi Pire sañu xóor bokk na ci këru diine yi barabu jàngale yi ëttu jàngalekat yi ak jàngalekaay yi ak jàngalin yi ëtt yi gënoon a rëy yi gën a yaa yi gën a siiw ci goxub Sénégal bi ko sanc ku tedd ku sell ka Serigne Amar ca digg fukkeelu xarnu ak juróom-ñaar Serigne Amar moomu mi ngi wàccee ci askanu dëcc fu njóogu nga xam ne mooy damel bu njëkk ca kajoor ma nga juddoo diimat ca fuuta tooro la tax mu juddoo fa mooy maamaatam man desit faal moo fa newoon mu meññeeko fa meññ fa ay waajuram meññ fa ay maamam moom mu juddoo fa looloo tax boo demee Pir boo waxtaanee ak waa kër ga sëriñ Amar Fall ñu ne la ñun ay ajoor lañ waaye ay futanke lañ ñaari cosaan yooyu bu ci màgg ñu jël waaye ñaar yëpp a màgg ñu mën a jàpp nag ne ginnaaw bi mu jàngee alxuraan ci wetu waajuram wu góor moom moomu Serigne Amar Fall dafa wéy nag dem ci dëkk bu naan Singati ca gànnaar foofa nag la jàng ba jommal leen jàng ba jaaxal leen ñu jox ko nag raayeb docteur ci xam-xamu lislaam mu ñëw fuutatooroo nag di jàngale foofa nag la jógee ca fuuta moom sañ Amar Fall daa dem dëkk bu ñuy wax sañu xoor gox bu ñuy wax sañu xoor ca biir Kajoor ndax booba ñi nga xam ne ñoo wàccee ca Dénia di njabootu Kolité Ngela ga wàcc xeex bi nga xam ne ñi ngi koy xeex ak doole bi nu am ak xëccoo bi ñu xëccoo ci seen biir tax na kenn munta lawal diine ca biir fuuta ndax ku toog sa moroom jóg ngir daaneel la loolu tax nag moom Serigne Amar Fall mu dellusi ci cosaanam lu njëkk Kajoor ana fu mu ñëw sañu xoor sañu xoor nag ba mu ñëwee dafa fàkk dëkk gàjj dëkk waaye ana sañu xoor di tekki sañu xóor mooy fa nit sañ a dëkk te am fa jàmmi boppam loola nag jàmm jooja dammeel yaa ko ko may mu may leen ko ndax dammeel yi ñoo moomoon suuf sa daara ju mag jooju nag muy daaray piir bu nu fàtte ne ba mu ubbee rek adduna bépp riir ko mag ñi nag ne ñu piir ma nga jógee ca baatu Piri maanaam firi alxuraan ñu ne pirima nanu dem ca ma nanu dem fa ñuy firee alxuraan looloo indi ci li ñu ma ngi wax baatu pir waaye wolof def ne siiw dana yóbbu turu borom fu tànk borom aggut loo tax sëriñ pir turam ci boppam yaa yaana yaagoo xam ne fu ni toll ci àdduna bi yaa ngi dégg ñu naan la daaray pir looloo tax nit ñi bëri da wut si ko ñu yaatal barab bi yaatal booba nag moo tax mu amoon ay pàcc ci biir daara ji mu am daara ji ci boppam jumaa ji ci boppam këru dongo yi ak boroom xam-xam yu mag yi ñëw di setal si ak setalaat seen xam-xam waaye nag mu amoon kër gi nga xam ne mooy këru sëriñ bi ana lu ñu doon jàngale ca daara yi pir lépp luy pirim alxuraan lépp luy addis lépp luy sira lépp luy yoon lépp luy mbootu alxuraan lépp luy làkku arab mbaa mbind mun bind ci làkku arab waaye nag am na ay xeltu yuñ fa daan jàngale xeltuy xam-xame xarala mu jëm ci tegu bu jub jëm ci xam-xamu jaww ji ak biddiw yi ak asamaan àgg nag ci di fa jàngale li nga xam ne mooy pajum cosaan maanaam daal lii tubaab tuddee université tey moom loola la woon moo tax nag mën nañ ne tey daara yu bëri yi ne ci réew mi te am doole daara yu bëri yu ne ci réew mi te ñu leen di tudd bu nu fa jógee wut kaleen sanc moom jaar na piir ba amee fa martabam mën a samp daara loola mën nañ ne daara yi piir kon daara yu bëri ci biir réew mi ña ko samp jaar nañ piir mbaa fa leen jógee na noo limaale daara ju mag jooja nga xam ne 1939 la ko Amath Sakhir sanc ca kokki ci ndigalu sëriñ Amath Sakhir Mbay di bàyyi jiili mbay bàyyi sëriñ Sam kon mën nañoo jàpp ne daara ji nga xam ne mooy daara ju mag ja nekk kokki ca biir njàmbur te Mame Matar Ndoumbe Diop sanc ko te bokkut ak daara ji nga xam ne 1939 lañ ko samp daara jooju mën nañ ne xarnu fukk juróom ñett ca la ko Maam Matar Ndumbe Diop sancoon Maam Matar Ndumbe moomu doon boroom xam-xam bu mag ci wër gum doon wër ngir saytu ak a jàng alxuraan jaar na piir ndax foofa la jàngee ba mokkal ngiiru Malik ni nu déggee alxuraan ak diine diggante bu rafet boobu am ci waa pir ak waa njóobeenu kokki googu rafetaay ga moo tax sëriñ pir bu fi jaar ak sëriñ kokki bu fi ne danga ko dëgëral ba ñaari gox ya xam-xam ba diina ja ak it xeltu ga ak xam-xamu àdduna ba dafa mel ne loo jàngee fii rek dañ koy noccee ji fële loolu moo tax nag ni pir mel noonu la kokki mel ubbiku nag boroom xam-xam yu bëri jaar fa jaar foofa jàngee fa alxuraan jàngee fa àdduna mottali fa seenu nite ndax booba ba ñuy ñëw ay nit ñu mat lañ école piir boobu nag ñu naan ko daaray piir ñu mag ñu ne jaar nañ fa ñoo xam ne ci goxub Sénégal bi def nañ fi lu rëy ci diine ak ci politique ana ñooñe ñana Malick Sy ba ñuy way ca yeelaa ngeen dégg ñu naan la konko buubu malik Sy buubu Malick Sy moomu nag Malick Sy mii ñuy wax bokkut ak ma ca kii sëriñu hal pulaar la sëriñu pël la boo xam ne ba mu motalee am njàngam dafa dem ca bundu fële ca penkub senegal daa di fay nag samp am réewum man ko defoon te 1695. ñu jàpp ne Abdelkader Kan moom ci boppam mu mag ma nga xam ne mooy almaam bi bu njëkk ca Fuuta Tooro nga xam ne keroog bi nga xamee ne Tooro doy Euh, xëccoo nañ ba xëccoo ba métti keroog nag ba ñu jalgatee ba wëlbati ne diina leen fi teg 1776 moom Abdel Kader Kan moomu mooy almaam bi bu njëkk ci Fuuta ana fu tasee taseeg Cerno Souleymane Baal xanaa du piir piir lañ tase kooku nga xam ne mooy borom diine ji moom ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo daaneel satigi yi ñoom ñëpp Pire lañ tase ba nga xamee ne jàng nan ba wàcc nag ba mokkal bala ñuy seet ñu am ko ñu ànd nag ne dañuy dem Fuuta ñoom ñëpp li nga xam ne moom lañ bëgg diine samp fa ñu samp ko fa ña nga xam ne danoo yor Fuuta te yoruñu ko ci diine ñu jëlee leen fa. ku tudd Pire tudd Maba Jaxu Ba moom mi nga xam ne dem na piir jaar fa waaye gis ngeen bin ne ko na dem mu jiyaadi moom ci boppam cala dem nag samp lii ñuy wax almaamiya nekk almaami ci rib ca ak Saalum. kon mën na ne daara yi piir daal ku ne jaar nga fa mën na ne it daara ju ne juddoo na fa kon nag xam ngeen ne daara ju mel noonu tubaab bi du ko bàyyi looloo tax nag tubaab bi tegoon ko bët di wut num dalee ci kawam ba bis tubaab bi ne sëriñ ah, Serigne bu Boubacar Penda Yéri Fall mii mi ngi jàppale Lat Joor mi nga xam ne bi mu jógee ca Maba Jaxu Ba ginnaaw bi Maba Jaxu génne àdduna dafa bëgg nangu siwaat eh, ngàngunaayu Kajoor toog fa te dañ ko faa jëlee woon tubaab bi nag ne nu muy def xanaa day taal kàggu bu mag ba di bibliothèque ba waaye bi ko waa daara ji yëgee nga xam ne 1869 la woon xam ne tubaab bi nar na koo lakk si danoo dem gas bi nu gasee jël téere yi suul leen suul leen ci am pax maasale bi tubaab bi di lakk téere yi benn lakku ca ba nu demee ba loola jàll ñu sulli leen lépp génne kon nag mën nañoo jàpp ne daaray Pire jooja ci daaneel lépp luy leer génne na fa daara yu bari génne nañ fa muqaddam yu bëri génne nañ fa xaali Amar Fall mi ko sancoon nag def naa ne loop ñetti téeméeri at ak lu topp ba tey leer gaa ngi fi ndax moo samp diine samp xam-xam ba mu law ci alxuraan lii moo doon waxtaanu xam sa démb xam sa tey xam sa démb xam sa tey di waxtaan wu leen Goethe Institut may ànd ci ak Archives nationales du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation massan Gueye assistant abu Soumaré régie technique La Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Bouye Fall Goethe Institut